dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyandoo wolof njaay nee na réeroo amul ñàkk waxtaan moom moo am collectif ñoo lànk ñoo bañ ñoom nag daat nañuy pare ngir nag toog ak njiitu réew mi di président Macky Sall ngir waxtaan ak mooma ngir nag Senelec deltu ginnaaw ci yokk gi nga xam ne daanaka yokk courant bi ak ñu génne Guy mari Sagna ci kasu bi yéen kaay groupe promo consulting bi di réew mi quotidien xëy nag andil ñu kàddu yi Alioune Badara Cissé mi nga xam ne moom mooy médiateur de la république moom moo ko xamle ci biir journal bi moom Alioune Badara Cissé la mu xamle nee na keroog bi nga xam ne dalal na collectif ñoo lànk ñoo bañ a ñoom daal gis na si ñoom ay nit ñoo xamante ne ñu ànd ak seen xel lañ ak ñuy wax loo xam ne lu xel mën a dégg la daan nay wax sax ne keroog bi nga xamante ni nee na leen bàyyi leen lépp loo xam ne jëm na ci manifestation yi nga xam ne yéen a koy amal collectif bi dañu ko wax naka maître loolu moom mënuñu ko teg benn yoon ci suufa waaye nag pare nañ ngir njiitu réew mi di président Macky Sall bu ñu bëggee recevoir ñu toog waxtaan ak nag benn yoona yéen a kaay gi di source añu fekk fa Abdou Karim Sall moom nag daat nay dal bu baax ci kaw ñi nga xam ne ñooy collectif ñoo lànk ñoo bañ di xeex lépp loo xam ne jëm na ci wàllum yokk courant gi Abdou Karim Sall dafa jàpp ne collectif bii daal ay politiciens déguisés rek ñoo si nekk ay nit ñoo xamante ni daal wéy di lambar lambari kese yéen a kaay gii di grand place mu ñu xamalaan ñu Alioune Badara Cissé la mu xamle nag nee na Sori Kaba mi nga xam ne moo waxoon ci lu jëm ci ñetteelu mandat bi Macky Sall dàq ko su doon man de du doxalee noonee kàddu Alioune Badara la yéen a kaay gii de la turbine mu ñu xamalaan ñu Sénégal jamono ji ñi nga xam ne ñoo fi amee jàngoroy roño ñoo ngi ci guddi gu bët séddagu maanaam def jalis ci réew mi doom ju góor la ndax li nga xam ne mooy kid yi maanaam la kenn mënul gis ci réew mi ki nga xam ne sax mooy Amidou Diallo jiite kuréel gi nga xam ne moo ëmb ñi amee jàngoroy roño moom nag dafa jàpp sax ne Sénégal dañuy jël kid yooyu nag yóbbu ko Gambie di ko jaay ci jamono joo xamante ni askan wi ñoo ngi bëgg a dee ngir nag mënuñoo gis kit fenn ba pare amee jàngoroy roño ci réew mi yéenekaay gi di Les Échos ñu fekk fa Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne moom lañ dénk lépp loo xamante ni jëm na ci wàllum wér-gi-yaram gi ci réew mi moom nag daat nay sulli ay mbóot ci ki nga xam ne mooy Amidou Diallo mi jiite kuréel gi ëmb ñi amee jàngoroy roñoo moom Diouf saar la moo xam le nee na du mii ngeen di dégg ak waxam ju bari ji lenn waralu ko lu dul nag càkku teefam ci boppam moom la ñu ko lànk la ndax Amidou Diallo dafa bëggoon a tabax ab centre jalis ci biir këram loole nag la ñu ko lànkal moo tax muy jóg lenn lu nekk mu di ko wax waaye ñi nga xam ne amee nañu jàngoro roñoo ñëpp mën nañ leen a faj ndax kii di ñoo ngi ci réew mi yéenekaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu procès Lamine Diack tey jii la ca Paris la France moom nag ñu koy toppee ci lu jëm ci mbirum corruption blanchiment d'argent tey jii la ñu koy atte ca nag 32e chambre tribunal correctionnel de Paris ci lu jëm ci mbirum IAAF moom Lamine Diack du moom kese la ñuy atte tey jii ki nga xam ne mooy Gabriel Dollé ak Habib Cissé ba Pape Massata Diack doom ji ak Alayzel Mexique Sikof ñooñe ñëpp tey ji daal danañu leen àtte ca Paris la France jëm ci mbirum gera jamono ji nag ñu bari di bàyyi xel ana lan moo fay tukkee réew mi ko di ñu xamalal ñu maître Moussa Sarr moom nag mooy avocat ki nga xam ne maanaam moom mooy waa njaageena daan nay wax sax ne ki nga xam ne nag mooy Massata Diack jàpp na ne dana ñu ko bàyyi ndax laaliwul lenn ca mbir ma moom maître Moussa Sarr mi nga xam ne moo koy layal jamono jii ma nga ca Paris la sam samedi nag ma nga woon ca Radisson ngir nag ñu ko doon sargal ndax nag réew mi quotidien moom la defoon homme de l'année mujj jël jébbal ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci njabootuk maanaam ëttu attekaay yi wàllum yoona président Mbagnick Diop mi jiite MEDES jiite groupe promo consulting moom nag xewu kerowa daan na koy rafetlu bu baax a baax kilifa yi nga xamante ni teewoon na fa daa di wax ne maître Moussa Sarr nag kilifa la ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum atte ci mi ndaje ma bëri woon na lool nag ay personnalité moom président Mbagnick Diop daan nay wax nag ñi nga xam ne ñooy journaliste yi ngir nag ñuy joxe ay xibaar yoo xam ne yu ñuy vérifier la xibaar yu wér te wóor te du am benn parparloo ba tey ci biir journal journal bi mu ñu xamal lan ñu réew mi quotidien moom tim doon màggal fukki at ak benn yoo xamante ni def na ci liggéey boo xamante ni bu am solo la daal di si ràññeeku lool nag si éthique ak déontologie yéen i kaay gii di libération xëy yóbbu ñu diwaanu Touba ak maire ba di Abdou Lahad Ka ak njublang ak looxoor ak giraawaal yi nga xam ne moom la fa nekkee ci ay tojange jëm ci ay marché rawatina bi jëm ci installation feu tricolore yéen libération mu ñu xamal lan ñu am na yeneen ñaari marché yoo xam ne waa ARMP daal nañu kay annulé yoo xam ne Abdou bëggoon a doxalee nu mu ko neexee journal bi di sunu lam mu ñu xamal lan ñu combat bi ñuy laam-laame diggante Modou Lo ak Ama Baldé ñi nga xamante ni nag ay àndandooy war a ay farandooy Luc Nicolaï lañ maanaam mbir mi ci boppam nag dañu see mel ni lu si réeroo ndax ñenn ñi jàpp nañ ne combat bi dina am ña si des nag ñoom amuñu benn xel mu rafet kana combat boobee dina am tant que Luc Nicolaï ma ngi ci kaso bi yéen a kaay gii di Les Échos moom mu xëy di ñu waxal naan ñu district sanitaire bu Yeumbeul Nord foofe nag benn médecin cardiologue moo fa sàcc ab télévision district sanitaire ba amoon ab télévision écran plat boo xam ne dañu koo defoon sa salle d'accueil ba moom la médecin bi na toññet jël ko yóbbu yóbbu këram daal di koy installé ci ab saalam toog nag jàpp boppam journal bii di Les Échos ak waa Grand Place di xëy ne lii nag njombe dëggantaan la ab médecin cardiologue moo sàcc télévision district sanitaire bu yëmbal noor